yaa ngi jëf euh, mbokk yi euh, ànd ak ñun euh, ci suba ba tey 6h30 Chérif moo fi nekk di perturbé les Malamine. faire son travail c'est Malamine Mané l'homme de Bignona euh, il fait partie de l'équipe technique ñu ngi leen di jaajëfal sunu équipe technique bu ñu bi ñuy àndal euh, Pape sama Thiam à la réalisation Massour Gueye euh, ci son bi Malamine Mané l'homme de Bignona et puis Amadou Sey Amadou Koura Sey falu kaw sara sans oublier ñi nekk ci logistique bi muy Ahmed Sissi ak Abdoulaye Kalbi Ami Liban ñaareelu pàcc bi dañ koy dooree ak xibaar yi ma fàttali ne tey mooy journée mondiale euh, paralysie cérébrale yooyu ñu dalal kenn ci njabootu gune yi ko am. Euh, euh, dinañu waxtaan itam ci cancer ak Souleymane ci jàngatu bés bi léegi léegi xibaar yi ci yaatal ànd ci ak Cheikh Tidiane Diaw. xibaar yi dañ koy tàmbali ak accident bu metti bi am diggante Goudiri la ak euh, Kidira. te euh, village Gourel Sambaramata benn camion euh, bu doon yàpp ay nag moom moo fa accidenté faat benn nit ak ñett ñu ci ay gaañu gaañu yu métti dañ ciy teewlu reportage Ibrahima Diabaxate. accident bu métti moo am ci route nationale numéro un ci gox Gurel Sambaramata te digganteem ak commune de Goudiri tolloo ci ñaari fukki kilomètre benn camion bu yàbb ay nag joge fële ci réew Mali moo daal di këpp bilan bi moom métti na lool ndaxte ràññi nañu ci benn nit bu ñàkk bakkanam ci ñetti ñu am gaañu gaañu yu métti. tey dem laa départ Mali vers 15 heures tey bu ñu gënee fi ay 10 heures def soog quoi bi moo daanu. am na am nag yi tëddee ak euh, sama rak bi sam bi tam perte ñett bakkanam ñaanal ko yàlla xaare ko àjjana ñoom ñëpp ñu ngi bàyyeekoo ci Bambey demoon Mali wuti ay nag daal di ko yóbbu ci seen dëkk bi ñu jokkoo ak ay témoins ñi nga xam ne ñu ngi foofu ci guddir yi xamal nañu ne daal fausse manœuvre la chauffeur bi def moo tax accident bi am. bi may agsi virage bi ci la ma nelaw bi këfee ci la oto bi continué quoi bi mu wàccee ma tourné waat ko fekk nag yi xam nga dañuy demee benn côté. ñu moo file waaw affaire bi daanoo ko te bële ñetti nit ñu amee ay gaañu gaañu yu métti yooyu yóbbu nañu leen ci centre de santé bu Goudiri pour ñu am premier soins yi élément brigade de gendarmerie territoriale ñu nekk fële ci Goudiri ubbi nañu ab enquête pour ñu xam lan moo waral accident bu métti métti boobu bu am fële ci Goudiri ci route nationale numéro 1. Ibrahima Diaba Khaté euh, ci tiis lañuy wax ak Mouminatou Seck mi nga xamee ni euh, démb euh, jébal nañ ko boromam ca sëkk yu yoof nit ñu bëri te woon na levée du corps ba fële ca West Foire ngir gunge doomu Thione Seck boobu nekkoon tamit soxna ci Bougane Gueye Dany génn àdduna ginnaaw feebar bu yàgg dañuy wax ci mbirum feebar sax taxaw ci cancer di. jàngoro boo xamee ni lu muy euh, laal ci jigéen ñi bari na waaye tamit euh, góor ñi dañuy yëg conséquence yi euh, bokk na ci kenn ci ñoom di wuyoo Demba jàlloo mi nga xamee ni ab soxnaam feebar bi moom moo koy yóbbu mois de mars 2023 la woon tey jii ba léegi muy dund ak souvenir bu métti boobu la moom mi nga xamee ni ñaari at ci ginnaaw rek la yoon ak moom ñu teewlu ci reportage yu Abdoulaye Diop. Demba gisatul soxnaam mi ngi faatu ci weeru mars bi passé li ko yóbbu nag mooy dafa amoon cancer du dem ba di fàttaliku seen photo mariage yi nga xam ni ñi ngi ko amaloon ci atum 2021 ñaari sentiment daal laay am bon di nga am sentiment boo xamante ne bànneex lay doon mais di nga am aussi sentiment ba nga xamante ne sentiment souffrance lay doon daal feebaru soxnaam si nag bi ñu koy xam fekk na boobu mu wan lor mujj na sax am doom waaye dafa delluwaat ci ginnaaw nag si la ko feebar bi daaneel ba ba muy génn àdduna. mu ko opere parce que dañu demoon ba affaire bi dafa jëloon sein bi yëpp quoi. noonu ñu defal ko scanner après état am stable xam nga ba mu tëdd ay 15 jours yooyu di ko nelaw rek nekk ci benn comment après mu yeewu mais ba mu yeewoo état am tamit stable quoi waaw affaire yi diisoon métti woon si moom loolu xam nga mooy loolu daal bañ ne woon sax il faut ñu defal ki IRM yooyu noonu yëpp noonu noonu daal lañ nekkee woon hôpital noonu noonu ba benn jour daal lañ ne il faut mu génn comme xaw na tane bu fi tëddee tam après day gën a métti rek charge yeeg yooyu noonu xam nga parce que te li ko dese mooy ay soins moo ko dese mën nay dem di ñëw chaque jour ñu koy defal soins noonu daal ba ni mu génnee noonu rek juste dafa génn après quelques jour lañ ci def deux jour trois jours defe naa maximum si la si la dem quoi. Demba ni li mu jàpp mooy cancer du sang ni muy sonalee jigéen ñi noonu lay sonalee tamit góor ñi. bari na de parce que jigéen ñi dañuy sonn dëgg la mais góor ñi man pour man sax ñooy gën a sonn quoi waaw parce que tamit nekk ak nit rek responsabilité la quoi charge la. xam nga yow sa maanaam sa sa lépp après danga koy limité quoi parce que tey lu ko mënti dal yow yaay taxaw en premier waaw doo xaar kenn ci dara sa doole sa kàttan sa lépp sa mën-mën sa lépp bon danga koy jiital ci ñoom d'abord quoi balaa ngay tal sa bopp. dem ba ni mu ngi jéem a tabaxaat dundam ngir tàmbali liggéeyam waaye mu xam ni dundam du mës a melati comme ni mu meloon démb. metti na daal metti na trop. waaw. bon courage euh, Demba di ñaanalaat ñëpp ñu am euh, euh, cancer di fàttali ne Souleymane dina ci def jàngat bi ndax jàngoro la joo xam ne c'est une maladie chronique mais koppar yu yu yu takku la laaj paj mi ci kanam daa daañu def lu point ak Souleymane Niang ñu wax itam ci leneen Cheikh Tidiane muy lu jëm ci jëlum fi fichu parrainage ak Ousmane Sonko nañ ko ko lànkale woon ba mu dem ca yoon tey jii na Cour dina ko wax euh, fan la féete ci mbir mi. Euh, mbir mi tey ci àjjuma ji euh, ni ñu ko waxee DGE lankal ko fiche de parrainage loolu tax ba avocat mi kalaame ko tey ci ngoon su 15 heures jotee lay doon avocat français bi di Juan Branco sax moom jotoon na bind ministre de l' intérieur ngir ñaan ko autorisation ñëw Sénégal ngir plaider à cause bu client bi nga xam ne jamono ji mi ngi ci kaso bi ci cour suprême la ñuy des ñoom ñi nga xam ni. dañoo révoqué contrôle judiciaire bu Aliou Sané coordonnateur bu Y'en a marre euh, moom euh, dafay euh, dellu kaso vice euh, coordonnateur bu F24 dañu ko tegoon loxo ci participation ci ab manifestation boo xamee ni euh, noo déclaré la woon ak trouble à l'ordre public Fati euh, dañuy wax ci mbirum éducation ak ubbite école bi nga xamee ni officiellement démb la gune yi dellu classe waaye am na ba léegi ñoo xamee ni mënuñ yegg ci salle de classe yi ndaxte seeni lekkool yi ndox mi daf ko nangu bokk na ci benn benn école bu nekk euh, fële ca Kër Massar euh, plus précisément CM Jaxaay euh, ngir yegg ca salle de daanaka mënul nekk ñu teewlu ci reportage Habib Faye. ubbi tey jàng tey loolee mënta sotti ci yenn ci école yi nekk fii ci Kër Massar biir banlieue bi rawatina. fii ci seen jaxaay ndongo yi ngir ñu dugg ci seen saal yi def cours lu jafe la lu ko waral ndoxu taw gi fees dell ci biir barab bi ñoom ñii di rëccu lii. problème yu bëri nag ci wàllum santé ci wàllum éducation parce que tey suñuy morom yu bëri ñoo ngi dem jàngi am na ñoo xamante ne tey pare nañ seen inscription seeni fourniture aussi ñun ñoo ngi fi toog di xeex pour lan suñu état école lu mu mel. ba ba ba ren encore ñu koy négliger ba ndoxu ren bi ñëwaat créer tous ces dégâts booy xool bâtiment A bi tamit. en plus école bi dafa yàgg bâtiment A bi mu am ay fissures wóorul pour ñu jaar pont bi yàqu na y avait pas de toilette depuis l'année dernière douche yi moom kenn waxul woon ay waxam. trois mois jàll vacances ñu ñëw tey ci suñu morom yëpp commencé nañ ubbi tey jàng tey ñun ñoo ngi nii. waajuru ndongo yi jaaxle lool ci ni mu tëddee. mais dañu bàyyi ak suñu bopp parce que li tax ñu bàyyi ñu suñu bopp mooy tey bu fekkoon ñoom defoon na li ñu waroon a def amaan duñ taxawaat fii di wax li ñuy wax nii suñu autorité yi faut ñu bàyyi xel si askan wu jaxaay parce que dañoo sonn parce que benn lycée bi moo fi nekk te lycée bi ñaata nit suñu ñoo fi jàngee actuellement nii te bu naaj bi ñëwee ñu am problème booy duñ jàng tey école tijji na booy ñi ngi dem seen classe yi mais xoolal lycée bi nu mu mel baaxul léegi professeur bi nee na saal bële fu mu toll mooy loolu baaxul te xale dañ fa war a jàngaatee. lii dee doon loo xam ne ñoom jàngalekat yi naqarul nañu ko ndax itam mënuñu dugg benn yoon ci biir classe yi def cours ci anam yi. boo xam ne ndox maa ngi fi am gis nga euh, ñax mi nu mu mel dañ ko béy moo tax ñu mën a gis yeneen bâtiment yi mais soo fi ñëwoon pratiquement euh, fin hivernage bi juste ngay gis ne bat yeneen bâtiment mënoo koon gis nga xool salle de classe yi lépp dafa tilim lépp dafa am ay guus guus boo xam ne soo fa nekkee pour nga respirer problème la. ñun nag dañ koy accepter parce que ça fait deux ans qu'on est là qu'on vit ce problème là avec les élèves mais gis nga pour nga dugg ci classe nga def fa euh, ñaari ñaari heure kese de cours c'est très difficile ce qui fait que les élèves tombent ñi nga xam ne dañu am crise dañuy daanu te suñu daanoo du ànd ak njàng parce que ñu daanoo rek dañuy perturber ñeneen ñi. waroon nañ ñëw peut-être jël suñu craie jël suñu éponge dem directement ci salle de classe yi parce que ñun ubbi tey jàng moom la ñu bëgg te moom lañu faraloon di def. ca lycée bu jaxaay boo fa jógee dem ca école unité 5 bu Kër saar ndox mu taa gi moo yàq biteg l'école gi loolee buñ ci doolee ñàkkum kaaraange gi ëlëb xeluk waajur yi. Ah, mais foog ñu ñëw jàng ndax dèjà ñun xam nga ñu tamit bëgguñu tamit suñuy doom di wër di a a mën a bi amul culture bi bii tamit amul culture ndax bi wóorul ndax fii yenn saa dañuy jékki-jékki rek gis naa affaire yu la romb. waaw directeur bi ci wàllu boppam moom mu ne bëggute yëy yàbbi ci ni école bi bindoo jamono jii te sax boo xoolee amul benn mur bu ko wër. ibbiteg <laughs> école gi doonut loo xam ne jëmmal nañu ko ci école yi nekk fii ci Kër Massar nawet gi waral li ni mel jural leen ay jafe-jafe yu bari ci biir barab yi ndongo yi ak jàngalekat yi ñoom xamuñu kañ lañ fa yéene door. njàng beeg jàngale gi. voilà euh, ñu jeexale ko ci wàllu tàggat yaram ak liste équipe nationale euh, bu Sénégal ñu war a joué jongante xaritoo ci diggante Sénégal ak Cameroun nag ñu koy xaarandi euh, ci kanam entraîneur bi war a janoo taskatu xibaar yi moom Aliou Cissé beneen jongante bu ñëpp di xaar di sunu gaynde yi nga xamee ni ñooy malentendant yi sourd muet nara football final troisième place bi ci seen diggante ak Égypte lay doon fii ak ay simili rek dina door. ñoom ñi nga xamee ni Ukraine moom moo leen éliminé woon euh, ci euh, demi-finale tir au but ginnaaw ba ñu defee match nul ku nekk dugal euh, benn bal kon jamono ji ñooy xëccoo médaille de bronze ba soxna Fati. jërëjëf Cheikh Tidiane Diaw xibaar yi kon buur na ñu dem ci yéenekaay yi ak lañu xëyee ñaareelu pàcc bi ak Cheikh Dia.